xew tey jeudi 4 avril 2024 diggante njànda ak Ndofane ñetti nit ñoo xam dañu gaare seen saret fekk ab nag bu tëdd ñu dagg tànk yi dagg pooc yi yóbbu yàpp bi bàyyi fa yaram bi euh, te feesuñu ko defuñ ko dara te nag bi nag bu medd la premièrement bi ma leen rombee dañ doon làqatu te foog naa booy def lu baax tamit euh, lu jub doo làqatu ma ñëw ñu génn yor seen ngànnaay ma bañ altercation am ma romb leen dem waaye bi ma ñëwaatee fekk aussi euh, ñu yóbbu pooc yi bàyyi fa yaramu nag bi lii nag ñuy ñuy alerter dañuy alerte di ñaax nit ñi ñu xoolaat bu baax li ñuy lekk ñu xoolaat bu baax li ñuy consommer waaye tamit ñu xoolaat bu baax li ñuy jënd di ko jox askan wi lii nag wax dëgg yàlla képp koo xamante ni gis nga vidéo bi lancer ko partager ko parce que Euh, tey si jeudi la xewee donc am na ñoo xam ne bu ngeen gisee ñu leen di jaay yàpp rek xam leen fi ñu ko jëlee jaa ngeen jëf.